asalaamaaleykum mbokk Sénégal man la Habib Sy bokk ci nga xam ne ñooy dagaan réew mi ngir jiite ko ci weer wi ñu nekk ci ñaar fukki fan ak ñeent man nag li ma ci boole du kenn lu may président Ousmane Sonko moo ma xol doyloo ma jël ay député Pastef ne leen dem leen ngeen pare doyen Habib Sy député yooyu mu boole ci ay kàngamu partem yoo xam ne ku nekk mënoon nga nekk candidat ku mel ne président biram Souleye Diop ku mel ne honorable Abbas Fall ku mel ne Guy Marius Sagna kon Ousmane maa ngi lay sant di la gërëm bu baax gërëm bu amul àpp yemul foofu mu ne waxtaan ak présidente Aïda Mbodj ak président Déthié Fall ne leen la ngeen yore ci député dama bëgg ngeen jox ko doyen Habib Sy loolu moo tax ma matal ñoom it maa leen di sant di sant waa Yewwi Askan Wi yëpp usman nag bi yàlla dem defee ñu ëpp ko doole dugal ko ci xat-xat daf ne ma doyen dama bëgg nga uufal ma njaboot gi njabootu politique am booba léegi li ma man lépp maa ngi koy def moo xam mat na wala matut wante njaboot googu Bassirou Diomaye Faye ci la bokk kon ma fas yéene campagne électorale bi nga xam ne moom lay dugg dama ci uufaale candidature u Bassirou Diomaye Faye loolu buñ demee ba ci kanam dana gën a leer yàlla dafa dogal nag man ma fekkee démb mokkal tey kon war naa mën a defar ëllëg yàlla dogal aussi ma nekk mag mu màggatagul ba pare jaar ci ndaw kon li ma umpale bëriwut yàlla dogal aussi ma nekkoon ci système bi ñuy wax te ba ma cey génn tim amul dara loo xam ne mii taq na ma loo xam ne war ngeen ma ko mën a ŋàññee kon man maa xam système bi xam fan la toj ak nan lañ koy tojee ba bu ëllëg si biir bu Ousmane ak Diomaye ñëwee nañuy tabaxe projet bi duñ ci am coono bu bari léegi nag li ci des mooy danañ ko waxtaanee ak yéen ci campagne électorale bi incha allah di sargal jigéen ñi bu baax di nuyu sama mbokk baykat yi sàmmkat yi nappkat yi étudiants yi particulièrement la la jeunesse de façon globale di leen wax ne bu leen yàkkamti Ousmane ngi ñëw ak jàngalekat yi ak sénégalais fu mu mën a nekk di beral nuyoo nag ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi di leen ñaanal yal na yàlla yàggal leen fi jërë ngeen jëf